gan gi coach Aliou euh, Cissé El Hadj Aliou Cissé euh, yore wàllu formation ci Racing Club de Dakar coach ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. am mbégte dalal ci matinalu Rewmi FM tey di la féliciter déjà ci victoire Sénégal bi euh, démb ñëpp kontaan nañu def la fête donc ñu lay gërëm ci teel a yeew bi ànd ak ñun alors coach gannaaw final bi nga xam ni jël nañu ko tey muy guléet yow yan jàngat nga def ci prestation gaynde yi démb. waaw bu njëkk di leen féliciter yéen tamit euh, di wax rek euh, kontaan nañu euh, ñëw tamit ci jàngat bi rek waaw di wax ne équipe bu Sénégal bi def na ko comme mu waree ba comme niñ ko soxla woon mooy ndam lañ soxla woon defal nañ ñu ko xale yi defal nañ ko mm-hmm. gagné nañ ko pour une première donc defal ñu rek lu dul kontaan. Mm-hmm. alors finalu démb bi ni ñu ko joué yow noo ko gisee. waaw niñ ko joué noonu lañ ko waroon joué ah, ndax ah, li mu laajoon moom mooy ah, lépp lu ñu waroon a indi mooy mu gaaw mu gaaw ci kanam te eh, gaawaay boobu gis nañ ko ci eh, li tax ñu jiital Ismaïla Sarr mu ñëw mm. eh, ba tax na niñ ko mbébétoon tamit noonu la amee ndax ci ñeenti minutes rek Sénégal am ci lii di penalty waaye Euh, malheureusement ñu ñu ñu ko donc euh, loolu la woon jàngat bi mooy bu ñu ñëwee na gaaw rek. ñu mhm. gaaw am penalty raté ko tax nag après comme li ñuy wax rek euh, match bi xaw a tourné nag nekk tam lu tagga tembe après ñu tembo jeexal ko noonu pour dem gagné ko ci loterie bi. Mhm. justement gis nañu début match bi ba si presque première mi-temps bi sax Sénégal moom moo ko dominé mais par la suite la match bi doog a alors lan moo tax euh, ci sa xalaat peut-être euh, mënuñu euh, réussir bi nga xam ni am nañu Ismaïla Sarr ak Sadio comme ni nga ko waxee match bi gaawoon na Aliou Cissé certainement ci loolu la joué mais lu tax foofu noonu réussite bi jafe woon. waaw li taxoon après réussite bi jafe moom mooy. Euh, penalty bi ñu bi ñu bi manqué noonu. moom hmm. moo xaw a tourné waat match bi ndax euh, yombul musagoo gagné nga ñëw ko tàmbali rek euh, am am am am xéwal wu toll noonu. Hmm. ba pare Euh, day mel ni yelwaan bu këpp <laughs> waaw yelwaan boobu nag ñu këpp nag moo xaw a jiixi jaaxa ci seen bopp nag mm. euh, léegi xamatuñu janjog joor di yàkkamti wala xamatuñu kan la ñuy jox bal bi donc euh, bëgg nañ dem ci kanam waaye buñ demee ci kanam duñu xam kan mooy mm. jeexal action bi donc looloo taxoon nag affaire yi xaw a jafe tuuti ci ñoom pour ñu dugal bii bi peut-être sànq waxuñu ko mais mental donc euh, coach bu ma la déggee daanaka mooy lépp ci football. waaw mental ci la ci la ci ci ci la bokk waaye li ci li ci li ci ëpp moom mooy euh, xarañte bi ak it euh, dem dem ba jeex bi comme ni ñuy wax parce que football bi léegi dañuy naan dafa taxu football bi mm. dafa taxu mooy ku xeexul lekk pour nga gañe di di dina doon lu jafe. Mm. d'accord alors coaching Aliou Cissé globalement noo ko jàngatee Demba. waaw comme moom rek euh, li ñuy wax rek moom euh, ni mu jàppee football moom mooy boo ñëwee euh, li mu laaj mooy ànd ak ak njàmbaar ànd ak tamit ak comme niñ koy waxee ci nasaraan ak abnégation moom yooyu la jiital ci football comme bi mu daan football noonu la doon footballee looloo tax moom la ñax tey ñu koy def mu rafet mu ñàkk rafet moom séntu ci loolu looloo tax euh, équipe am dafay dem euh, wane moom it xar kanamam ni mu mel donc mm. looloo tax euh, Euh, ni mu ko ni mu ko ni mu ko yaakaaree ak ni mu ko tibbee tamit noonu la saxee tamit ci euh, xalaatam bi mu commencé ak équipe nation équipe nationale bu Sénégal ba léegi loolu tax nag euh, tey loolu fay na ko di ko wax rek gàcce ngalam. Mhm. bu weesoo finalu démb bi kan bi ak ni ci Sénégal taxawee ak jongante yi ban évaluation nga siy def en tant que yor wàllu formation noo gisee tactique bi technique bi ak composition groupe yi tout. waaw Sénégal dugg ci ci njàkkare ndax euh, comme ni ñuy wax feebar bi xaw a jàppoon euh, li ëpp ci ay jouram yi mu yaakaaroon ne ñoom ñooy tàmbali euh, jongante bi waaye bi ñu biñ ko commencé gis nañ ne tactiquement football bi leerul woon ndax ñi ñu waroon a boole leen donc Euh, ñii nga xam ne yor na leen ci seen euh, ci ci ci loxoom ñooñu la doon xool comme ni ñu koy waxee takkale leen waaye antuwul woon ci euh, football bu rafet ak it mën a dugal bi ba tax na xawoon na taga tembe tuuti mais bi ñu jógee ci ñetti match yooyu daal gis nañ ne bi ñëpp ñibbisee bi ñëpp ñëwee ci tournoi bi ñu dajaloo ba mu defaraat ko euh, équipe bi indi na beneen xar kanam euh, indil ñu tamit football bu taaru bu ànd ak xeex ak it euh, pare nañu pour jëli Euh, lii nga xam ne moom mooy ndam li hmm. euh, ak benn euh, joueur comme li tubaab di wax joueur plus mooy benn Sadio Mané bi nga xam ne liñ doon xaar ci moom wane na ko ci ki nga xam ne bokk na ci fukki footballeur yoo xam ne ràññeeku nañ ci àdduna bi hmm. mu indi loolu ànd ak bi xëcc tamit ñi ci des ci wetam Euh, def différence bi ba indil ñu lii di ndam li mhm. ñu gis tamit seen xëy na sànq sax waxuñu ko mais euh, défence bi tamit euh, am na solo parce que Sénégal pratiquement li mu encaissé ci ay bi yu bëriwul défense boobu aussi def nañu lu lu am solo. lu am solo lu am solo surtout foofu dañuy wax équipe bi rek mais fi ñu war a ci li ëpp moom mooy ci défense boobu. Mhm. parce que ñaar ñi ñu boole kii ku responsable la. keneen ki ku ku xelam màcc la ci li muy def moom mm. mooy Abdou Diallo. Mm. donc euh, looloo tax euh, seen composition boobu euh, mu ànd ak complémentarité ba mm. pare def tamit assurance ci ginnaaw looloo tax li ñu waroon jël ci biir jëluñu ko te it mu ànd ak ndëgër ci ginnaaw ba équipe bi am stabilité ci côté boobu ànd tamit. Euh, ki nga xam ne moom mooy wattukaay ñu ne àdduna bi yëpp moom moo ko di dàq donc waaw loolu doon tamit euh, beneen euh, plus ci équipe bu Sénégal bi looloo tax ñu gagné lii di coupe bi mm-hmm. Aliou Cissé nekk entraîneur bu cosaanoo ci Sénégal jël coupe pour la première fois lan lay def si yéen en tant que ay coach locaux parce que tendance bi mooy nekk jëli nit bitim réew indi ko donc yéen tey est-ce que lii dafay dalal seen xel wala daf leen di yokk yaakaar ci euh, peut-être euh, mun a jël équipe bi demain ak wane ni xëy na lii mooy yoon bi. waaw li ñuy wax rek euh, boo wàccee sa ànd ànd boo dem fekk fo borom loolu moo ñu dal ndax gis nañ ne Sénégal ñu xarañ ñu ngi fii ñoo ngi Euh, expertise baa ngi fii ñu ngi jóge fii di dem jàngale ñeneen di ñëwaat ñeneen di ñëw ci ñoom di jàng fii waaye bàyyiwuñ leen xel ndax euh, réew mi ñu ngi koy tudd fépp mais mosuñoo bokk ci football ah ndax euh, fi football tolloon mi ngi commencé ci ci ci li nga xam ne liggéey la bi sa biir réew waaye dañ ko jëloon teg ko fële di di toppandoo ñeneen ñi alors que fii lañu ñu waroon a jiitoo def liggéey bi mucc ayib bi war Euh, ba tax na euh, ndam bi nga xam ne si Cissé am na ko dina tax ñu bàyyi xel trop ñi nga xam ne ñu ngi ci ginnaaw di tàggat xale yi ci naaj bi waaw di leen defar ba xale yooyu tey màgg ñeneen jëriñoo leen euh, ñu ñëw tey indil ñu ndam li donc ça prouve que am na solo trop expertise locale bi ñuy wax ni ndax xam-xam bi bari na fi wasaare na fi waaye. Euh, dinañ leen gën a bàyyi xel pour que ñu gëm ne ñun li ñu yor mën nañu yóbbu fépp mën hmm. nañu yóbbu fépp euh, mën nañ ko tamit euh, wane fépp ci àdduna bi ndax am na solo xam-xam bi tamit leer na. Hmm. bu ñu waxaatee ci équipe bi Aliou Cissé yàgg nañu wax ne dafay làmbatu ndax xëy na changement yu bari yi mu doon def ak yenn convocation yi tey mun nañu jàpp ni am na équipe bi nga xam ne moom la doon war dafa mës am équipement man de bokkuma ci ñi nga xam ne dañ daan wax dafay làmbatu. Hmm. parce que boo leen bokkee métier bi di nga xam ne euh, moom ci biir boppam ñii mu war a teg euh, xam na leen ndax euh, boo xoolee ci li ëpp ci football biñ doon. wone ci at yu mujj diñ ci gis hmm. juróom ba juróom-ñaar yoo xam ne bul dara jotul dañuy bokk ci li ñuy def hmm. donc moom leeroon na ko ci biir boppam ne Euh, euh, waaw moom leeroon na ko ci boppam ne ñi xam naa ñi may teg euh, waaye li ko doon xaw a sonal tuuti mooy léeg-léeg nga gis ñenn ñi dinañ yaakaar ci ñoom mais gaañu gaañu wala lii di feebar dina leen daal ba tax na daanul am groupam bi war mais gis nga bim ko amee ñoom ñëpp leer na ci boppam ndax yàgg na liggéey ak ñoom te gëm na leen te it gëm na tamit ci biir boppam ne lii ma ci ñi dinañ ma defal lii te defal nañ ko ko donc gàncax gàllama Aliou Cissé. Mhm. alors euh, Sénégal naka la war a euh, dëgmale yeneen compétition yi ndax euh, coupe du monde mi ngi ñëw te Égypte mi la ñu war a dajewaatal ci barrage yi euh, naka nga séentoo xëy na ñu duggee ko si si yooyu compétition ak ban changement le étoile bu bees bi ñu am démb mun indi si prestation yi ñëw. waaw niñ ci war duggee rek moom mooy ak beneen. Euh, confiance ak it euh, beneen euh, xar kanam ndax léegi àdduna bi yëpp dañ lay xaaree parce que yàgg nañu xaaree ne am na fu sori foo war jëm. Mm. te ñii nga xam ne bëggoon nañu ñëw ci équipe bi ñoom it tamit dinañu bëri ñoo xam ne dinañu fëgg bunt bi pour ñëw dugg. Mm. mais ñu jàpp ne changement yooyu dina am ndax am na ci. ñenn ñi nekk ci groupe bi ñoo xam ne euh, ñeneen dinañ ñëw pour. Euh, remplacer leen. Euh, remplacer leen ndax fi équipe bi toll la ak mm. niveau bi donc dañuy dem jëliwaat ñoo xam ne am nañ niveau boobu. pour mm. boole leen ci. donc mun nañu xaar équipe xëy na bu gën a dëgër équipe bu gën a taxaw. waaw loolu parce que équipe bi tey fa la toll ndax buñ la nee yaa jiitu ci Afrique ci juróomi at yu mujj yi ba pare nga ñëwaat boole ci jëlaat ndam bu ñëpp doon xëccoo Euh, loolu dina laaj nga demaat indi ñeneen ñu gën a xarañ pour gën a dooleel euh, loolu ci équipe bi. Mhm. jërëjëf euh, coach Aliou Cissé ñu ngi lay gërëm di la féliciter encore ndaxte voilà sa turandoo ni ñu ko waxee demb moom moo jël coupe bi ñëpp yéene ko Sénégal ñëpp yéene ko joueurs yi nga xam ne ils se sont donnés à fond donc ñu leen di féliciter ñoom ñëpp di la gërëm amoon nañu mbégte dalal ci matinalu tey bi. waaw di leen gërëm yéen tamit di wane ne rek def ngeen liggéey bu mucc ayib ci euh, ci ci ci ci euh, phase tournoi bi wane ne ne rek euh, benn kàddu gi ñu bokkoon moom mooy mànkoo wuti ndam li hmm. yéen it ngeen def ci liggéey bu mucc ayib tey moom moo waral à ce que ñu am li nga xam ne bi ñu amee indépendance ba léegi ñu ngi koy wëri donc gàcce ngaalama yéen tamit.